waye di nuyu bu baax di ziara mbollem këru kilifa diine yep di ci si jiital alxalifatul am di taifatul muridiya al cheikh mouhamadul muntaqa bashir suñu borom may ko gudd fan ak wér ak mbollem njabotu serigne touba ak yep niki nonu non lañuy ziare bu baax baax baax serigne babacar si mansour ak mbollem hadar seydi hadji malik si yep fa tabarakallah di len ñaanal yàlla defal len tawfiq ak jàmm ba liñ yene liggéey l'islam jaaré ko sen tolu mam ñu mën ko agalé niki noonu ñu ngi nuyu di ziara mbooleem këru kilifa diine yëpp ak kilifa aaday di ñaan borom subhaanahu wa taala yàlla na yokk jàmm ak sutura ci réew mi. niki noonu ñu ngi nuyu di ziara mbooleem téléspectateur u Télé Prestige Thiès yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy safoo ci suñu émission bi nga xamante ni ñu ngi koy taxawal fii ci biir kër gi de la place à l'enfant dans la religion muy taxawaay ndaw ñi ci biir diine ji comme ni ngeen ko baaxoo di ko defee saa yu nekk su ñëwee andil leen benn tomb ngir loo xamante ni day jagal suñu diine suñu digganteeg suñu boroom waaye suñu digganteeg suñu moroom waaye ni noonu léeg-léeg ñi sekku ko ak suñuy mbokku ndaw fa tabaarakallaahu noonu lañ koy àndee teg yéen tey fii ci biir Prestige Thiès ci si émission bi nga xamante ni mooy la place de l'enfant dans la religion comme nuñ ko baaxoo di ko defee tey ñi dalaloon koo xamante ni jàmbaar la mu nekk ndaw loo xamante ni di yeewoo ci biir société bi nekk jàmbaar diine rek ñor ko waaye duñ leen ko présenté ndax gis ngeen fi ñu sekkoon ak moom ay jamono ci ginnaaw ñu sekkoon ak moom plateau fii ci biir kër gi di alxaaji daawda mu maam Mansour bal xaw mi nekk jàmbaar ñu sekkoon ak moom ci tomb bu am solo balaa ñuy sori dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak mboolem téléspectateur Télé Prestige alxaaji daawda ñu ngi lay nuyu الحمد لله الذي قص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتقدم على سائر الأنبياء والمرسلين وختم به الرسالة كما بدأ به الكون والتكوين واصطفاه وأكرمه بشمائل ومعجزات لم تجمع في أحد غيره وأشهد أن سيدنا محمد حبيب الله وصفيه صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله عن غوص البرايا أبي العباس أحمد بن محمد أصالم التيجاني محققة الكون بمعنى السر مجمعه فيد الإله بلا لبس ولا باس اقتصارا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كن فتبارك الله الحاج Samba مسامبا ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax di kontaan bi ñu fo bi ñu fi jugee ba léegi ñu ngi gis ne jotaay bi mu ngi am yokkute ndaw ñi fa tabaarakallaahu ñu ci bari ñu ngi may woo hmm. di ma wax ne émission bi fa tabaarakallaahu mu ngi développé ci wàllu xam-xam waaye tamit jikko yi nga xamante ni moom ngay wax nit ñi ñu ñu ngi koy appliqué macha allah kon yàlla na yàlla def tawféex amiin ñuy comme ni nga ko nuyoo rek ñu nuyu kilifa diine yëpp nuyu boroom kër gi hmm. nuyu fa tabaarakallaahu sox suñu soxna si nga xamante ni moo fi nekk di suñu doomu sëriñ mm-hmm. di soxna roqee kebe ñu koy ñaanal yàlla yal na yàlla defal ko tawféex bu baax a baax amiin amiin mu mel ni du gudd rek dañuy dugg ci waxtaan bi incha allah macha allah am na solo ñu ngi lay fay nuyoo alhaaji daawda mu maam Mansour di koo xamante ni niñ ko waxee rek jàmbaar diine rek ñor ko ak lislaam waaye it saa yu waxee rek ñu jariñoo ci ngir ni li muy wax ci xam-xam rek la tegu fa tabaarakallaahu comme ni ñu leen ko waxee ñi sekkoon nag moom jotaay fii ci biir kër gi si suñu émission muy taxawaayu ndaw ñi ci biir diine ji mu nekkoon ak ñun doom xuus ci benn thème bu am solo xam nga ni thème ba mu nekkoon keroog mu ngi doon wax ci almuru amuy al insaniya muy nite nga xamante ni nite ñëpp soxnañ ko soxla nañ ko waaye ci ndaw ñi lañ ko gën a soxla ndax ñoom ñooy war a nekk magi ëllëg ci nim ko leeralee waaye bu ngeen bàyyee xel tuuti ci ginnaaw. ci biir waxam junjoon nañu benn xeetu jikko ju am solo boo xamante ni jikko ju borom bi subhaanahu wa naw la waaye jikko ju yonente bi alayhi salaatu wasalaam naw la ba taxoon ni suñu boroom tagg na ci ay nit ci alquran muy al isaar isaar nag dañ koy bàyyi mu tekkil ko boppam tekkil ko ñi nga xamante ni ñoo ñuy déglu ndax ñu bari soxla nañoo xam lan mooy al isaar muy euh, niñ koy xaaree ci yow nga leeralee ko mboolem ñi nga xamante ni ñoo lay déglu kon li ñu bëgg rek ci tënk mooy nga wax ñu lan mooy al baat bi lan lay tekki ci wolof waaye it istilaahiyan boroom xam-xam yi si lan la ñu dëppoo ba ne lii kat mooy al isaar lii bu nit jógee di ko def kat dinañ ne kii kat mu ngi def al isaar kon loolu alxaaji daaw da nan nga ñu ko mën a tekkilee alhamdulilahi rabbil alamin comme ni nga ko waxee rek ne lislaam balaa ma dugg ci thème bi damay wax ne lislaam dafa nekk euh, loo xamante ni dafay yaddu ila lii bi axlaaqi alxamida ndeysaan dund dafa am lu koy sécuriser hmm. yàlla dafa bind doomu aadama yi waaye ñëpp yemuñu dëgg la ku ci nekk ak sa jikko am na koo xamante ni bu xawee am tuuti day beew hmm. am na koo xamante ni lu mu am fa tabaarakallaahu même boo bu amoon ni milliard tamit boo ko gisee mu yéeg ci oto nga di ko ñee moom jàpp na ne si euh, jàpp na ne ci war warwaay yi nga xamante ni yi gën a suufe la ndax wala xad karam naa bani aadama genre nit ñooñu nga xamante ni duñ toroxal doomu aadama mukk ngir lan ngir valeuru doomu aadama kon l'islam luy luy luy luy njariñu lislaam ci société bi lislaam dafay woote pour ñu nekk ci al axlaaqul xamida mooy jikko yi yi nga xamante ni moom la lislaam gërëm mm-hmm. bokk dafa bokk ci jikko yi l'islam gërëm loolu lu tax mu di ko woote moy inama yarsamu tariqan wasatan yughzi yuxsi ruux dafa bëgg ruux yi ndaysan te ruh dara du ko dundal jikko ndaysan deug jikko rek mom moy dundal ruh kon yi ñu doon wax muru ab ñu doon wax ci walu jikko la waye li ñuy wax tamit mom ben borom xam-xam bu ñuy waxee mustafa murad mustafa murad mu ngi jugee ci jami'atul Azhar ba nek fële mustafa murad momu bind na ci téré bu ñuy wax xuluxul mumin neena jikko yi nga xamanteni moy من الاخلاق مثاليه مانام دافا الاسلام دافا بوك سي اي جيكو يو خامتيني بوكو تودي ريك نييب داني خامني جيكو بي جيكو بو نوارا واختاني لا غير ام سولو جيكو بوبو واي جيكو بوبو مصطفى مراد نينا موي جيكو بيغا خامتيني مو غن ام سيمبول سي الاسلام موم رؤى موم موم الايسار الايسار الايسار كون الحاج سامبلان موي الايسار الايسار موم لاج لاي لاج الايسار بروم خام خامي دانيو واخني موي ان تجود بمالين mal hajati ilayhi moy nga tabe ci alal joo xamanteni yow yang ci am aajo li ngay joxe dang ci am aajo xam nga joxe lo xamanteni danaka boko joxe baxna boko baax na boo ko joxewul baax na loolu baax da ko gëna dëggu la motax mustafa murad ni jikko bi gëna am symbole ci l'islam moy al isar mom loolu la gëm di borom xam-xam ñu ne ko al isar moy lan bo démé ci Ihya ulumuddin bu imaamul Ghazali borom xam-xam ya fa nekk nga xamante ni indi na leen ci mahallu shahid nga xamante ni ñooy traité thème bi dafa am benn borom xam-xam bu ñuy wax Yusuf ibnu Xuseyni dafa wax ne al isaar mooy an tuqaddima xuzuuz al ix xuzuuz al ixwaan ala xuzuuzihi waaye nag fii amri dunia wal axira mooy nga jiital nga jiital yow bëgg-bëggu nit ñi si say bëgg-bëgg. lay ndeysaan sa intérêt personnel yow. Hmm. nga ji mooy nga jiital intérêt personnel nit ñi laata yow sa intérêt di ñëw. lay ndeysaan. Hmm. imagine loolu tey pa hmm, euh, père de famille bu ko defoon tey. wala chef de quartier bi def ko. wala maire bi def ko. wala préfet def ko. wala président def ko. wala sëriñ bi def ko. wala xalifa bi def ko. aywa ñim gouverne kon lu ñuy am. yo kon loolu da da nga koy delloo ca saxaaba ya ak dundu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. xoolal sang bi rek nga xam ne moo gën ñëpp mën a jàngale lool. dafa toog ba mu yàgg benn xew-xew am korite wala tabaksi mm. korite wala tabaski ñëw sang bi soxla mantu. moom yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam soxla mantu mooy alburdatu. Mm. mu soxla soxla ko lool. benn as ndaw ñawal ko mantu hmm. ñëw ni ko sallallahu alayhi wa sallam mantu bii de dama bëggoon nga sol ko dem julli jee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jëlee mantu bi sol ko hmm. bi mu ko jëlee rek mooy comme boo amee loo boo doon wut loo soxla boo ko amee ni ngay santee di wax di kebetu hmm. aywa sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon def ngir mantu bu rafet bi ak tamit ni mu ko amee ni mu ko amee ci aala bi ni mu ko amee ay guddi rek benn saxaaba ñëw ne ko man de mantu bi la soxna si mayoon dafa rafet waaye dama bëggoon mantu bi de laa bëgg sallallahu alayhi wa sallam malgré li mu bëgg mantu bi yëpp yëpp mu jël mantu bi jox ko saxaaba bi kon kooku di jàngale hmm. al mom mom moy ki nga xamanteni mom mo ci tagat ay saxaabaam ta nu ci tagate ay saxaabaam moy buñ duggé ci waxtan bi rek di ko xam moy al isar dal mom la olof di wax eufle eufle eufle moy gënale moy gënale waaye li ngay gënale day fekk nga am ci soxla comme niko yàlla waxé ci alquran ne wa yutimuuna at'ama ala hubbihi neena alu bayti rasul wa kër yonent ñom biñi lél miskin ba wala biñi lél yatim ba wala biñi lél asir ba ta moy prisonnier ba wala ko xamanteni dafa ñàkk hmm. wala koo xamante ni jirim la boo xamante ni wooy juram dafa génn àdduna ñu koy def hmm. lu leen ci yóbboon mooy ala xubbihi dañ dañ ca am soxla hmm. nuñ ci amee soxla mooy wor nañ ba ti ba heure ndag jot nga xamante ni daanaka teg ndogu li pour xéewalu rek a ci des bi loolu amee benn yettim taxaw ci buntu kër gi ne yéen la ñuy woowee waa aalu bayti rasul waa kër yonent bi te yéen du ngeen tas yaakaar man de ya asir bi moo njëkk a ñëw mu ne man de dañ maa tëjoon waaye maa ngi nii di door a génn aw ma sax fa tabaarakallaahu lu ma xéewaloo ñu jël ndogu lépp jox ndeysaan kon jikko jooju moom lañ bëgg a travailler hmm. te tamit leeral ko bu baax a baax a baax ci biir société bi hmm. nan lañ ko war a defee ba ñépp xam euh, l'islam lan mooy njëriñam ci société bi ndeysaan wallahi ndeysaan jërëjëf leer na kon mbokk yi mi ngi noonu ngeen di leen fàttali ba léegi rek yéen a télévis télévision très waaye it comme ni ngeen ko baaxoo di ko defee saa yu nekk muy di ànd ak ñun fii ci biir émission bi nga xamante ni mooy taxawaayu ndaw ñi ci biir diine ji di lañ ko fàttali rek ñu dalaloon jàmbaar di alxaaji da mu maam Mansour comme ni mu ko leeralee ci jikko ju am solo bi mu wax léegi te muy al isaar comme ni mu ko tekkee ci olof mooy ëfle waaye it eh, ci ni mu ko waxee mooy nga jël li nga gën a soxla joxe ko comme yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu ko nettalee ci mantoom ba Seydina Aliyun ba mu dogee ba mu wooree ba dog jot mu xañ waa këram ak ay njabootam ngir lan miskin ba ñëw di yalwaan te xam na ni miskin ba gën a soxla mu jël lépp jox ko ko kon mbokk yi loolu jikko ju tedd la incha allah alxaaji Daawda ñu ngi lay sant ci leeral bi ñu ngi leeralee ci al isaar mooy lan ci wàllu luga waaye islaaxiya mooy wàll borom xam-xam yi ñoom lan la ñuy d'accord bokk ci xam-xam bu rafet bi ñu ci wax waaye suñu meloon luy samp laaj di laaj al isaar ci lan lay amee ëfle ci lan lay amee ci àll lay amee wala ci ay matériel wala ci ban ci an ci yan façon lay amee alxaaji daawda al isaar aywa fa tabarakallahu ñi ñu jitu won ñom ñoy suñuy royuwaay ñi ñu jiitu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam di ci njiit moom ni ci nekkee ni ci nekkee njiit ànd ay saxaaba aki al ansaar ñoom ñëpp doon dugg ci biir saxaaba yi ak mu ak ak taabiina yeeg saalixiina yeeg aqtaab yeeg ñoom ñëpp di ay ñu baax ñoom ñoo ñu ban yoon la jaar ban yoon la ñu wan sallallahu alayhi wa dafa jóge madinatu munawwara dafa jóge makkah bi mu jógee màkk ñëw nee naa la débuté lislaam lu lu metti la mu nekk màkk ñu sonal ko lool mm-hmm. imaamul Buseyri woy na ko nee na fa yaa way xa min jafu nabiyan mm-hmm. bi ardin alifadhu dabaabuha wa zibaahu mm-hmm. nee na maa yéem toskari nit ñoo xamante ni ñu ngi génne sang boo xamante ni bi ñu koy génne ñi nga xamante ni ay mala lañ ay bàyyi ma ñooy kar sang bi naan ko kaay ñu dalal la motax tax uwaysul xaran yi uwaysul xaran yi nga xamanteni ku yónent bi lancé won la ne jàkkaarlu yónent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ne ko fa anta muradul kulli yow salallahu alayhi wa sallam yow la ñëpp wër fa anta muradul kulli wal kullu waasifun képp kuy melal rek yow lay melal wal kullu wasifun kuy jël exemple ci yow la koy jël ta nek lu bax wal kullu wasifun fa ma mama darakal abdu naa la munaw ku dajeeg yow am lim bébét ku dajeeg yow rek am lim bëgg dafa am ñoo xamante ni dañ doon bëgg euh, dafa am lu ñu doon lu ñu bëggoon. Hmm. te mooy dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. te mooy waa Madinatu war ñii waa ansaar ñii ma bëgg wax. Hmm. bi ñu fa ñëwee xam nga booy gàddaay da nga fay bàyyi say alal ndax booy gàddaay da ngay làqatu. dëgg la saxa saxaaba yi biñ gàddaay ñëw Madinatu ñëw Madinatu Munawwara jóge Màkka. biñ ñëwee. mu metti lool ndax bàyyi nañ fa seeni tool bàyyi nañ fa seeni wó ay ay alal ju bare bare tak euh, yu takku bàyyi nañ ko fa hmm. waaye bi ñëwee daanaka léeg-léeg reer day xaw a manqué hmm. wala ndékki xaw a manqué wala fa tabaarakallaahu hmm. léeg-léeg collin gi sax aywa sallallahu alayhi wa sallam ñu am benn xare ci jamono boobu ñu koy wax xaswatu bani nadir tambe ñu teunk waye kon ma wax la ni la li waral xare bi ci teunk dal li waral xare bi mo yonent bi dafa amoon lu teunk won ak ñom ñom ñu jéggi sartiya biñu jéggé jéggee sartiya nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xex ak ñom bi xex ak ñom nak euh ñom amna amon nañu kër amon nañu fas amon nañu yu baree bari waye ñom biñu xamé ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen ne day jël alal jeeg yooyu ndax hmm. màng la hmm. ndax yàlla nee na waalamu hmm. annama ganimtum min shay'in fa inna lillahi xumusuhu yàlla nee na lu ngeen màng ci xare loolu dagan na kon yonent bi sax alayhi wa sallam bi mu ko jëlee mu woo waa ansaar réunion nag ne leen man de dama fay ñëw maag samay saxaabaa ngi nii léeg-léeg sax ñu si bare bari amuñu kër ñii si jàkka ji lañuy fanaan comme liñ màng ci gazootu Bani Nadir bii dama bëggoon léegi ñu damaa bëggoon rek dama leen doon ñaan ngeen bàyyi ko saxaaba yi bu ngeen ko bàyyeek saxaaba yi ñoom ñu bàyyi leen ak li ngeen am te xadis boobu abdullah ibnu abbas moo nettali xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne in shitum qasamtum lil muhajirina min amwalikum wa diyaarikum wa tusaarikunahum fi hadihi alganima wa in shitum kaana lakum diyaarukum wa in shitum kaana lakum diyaarukum wa amwalukum walam naqsim lakum shay'an yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu leen waxee lii. waa ansaar yëpp sëgg. la leen wax moom yonent bi. yonent bi da leen a wax ni leen. liñ jëlee ci xaswatu bani nadir. dama bëggoon comme que yéen am ngeen i tool am ngeen i am ngeen i fas am ngeen i lu leen bayal am ngeen lu ngeen dundee ren ba déwén. dama bëggoon ngeen bàyyi ko ñi nga xamante ni ñoom laa àndal. mooy almuhajirin mooy almuhajirin. waa ansaar yëpp sëgg. biñ sëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne. di xaar waa ansaar lan lañ war a wax. Hmm. ndekete yooyu ñoom ñu ngay wax naan ay waay waa dañ dañ kiñ doon bébét ay at daje nañoo ak moom. bu ko neexoon mën na ñëw rek forcé ni yéen kat am ngeen lu ngeen dundee bàyyil ma jox ko ñii waaye dafa diisook ñoom. du ko def kon muy jàngale ne wa amruhum shura baynahum seen luy dox ci penc mi rek nañ ci diisoo. ci diisoo moo xam chef de quartier bi la per de famille bi la président bi nangam nangam. Hmm. diisoo al isaar. Hmm. ndax koo di al rek. wane ne yëg ko. yëg ko dëgg la. Hmm. waa ansaar siggi am ku tontu ne ko sallallahu alayhi wa hmm. li nga wax duñ ko def bal lañuy def bal bal ci arab mooy hmm. firi al ittiraab mooy yow liñ ñu proposé. lu ko gën a piire la ñuy def loolu la bal di firi. waa ansaar tontu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bal naqsimu lahum min amwalina wa diyaarina wa tu wa nusiruhum bil ganimati wala nushaariku fiiha ñu ne ko waa ansaar ne ko yonent bi li nga wax duñ ko def mm-hmm. li ñuy def mooy lan mm-hmm. mooy ñun ak saxaaba yi mm-hmm. ñi nga àndal ku ci am ñaari kër ñun waa ansaar da ngay jël benn kër jox benn saxaaba ku ci am ñaari tool da ngay jël benn tool jox benn saxaaba ku ci am ñaari warwaay da ngay jël benn warwaay jox benn saxaaba te saa yi wu ñu demee xare nag saay yi wu ñu demee xare mm. mooy li ñu jëlee ci xare bi yéen yéen a koy moom ñun duñ ci séddoog yéen lolou yeungal aras si waxin hmm. yàlla wàcce aya ne ko ña fa bàyyi ñanga bàyyi mak hmm. bu len joy say mbok ngi ni wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim xasaasa والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة ومن يوق سق نفسه فأولئك هم المفلحون yàlla nee na ñi walladina tabawwa'u daara wal imaana mu ngi am ci nit ñi ñoo xamante ni ñëwaguñ de waaye yow yonent bi di nga daje ak ñoom tabawwa'u daara wal imaana ñoom fañ sax fañ dëkk ñu ngi fa dëkk rek chaque jour ñu lay mbébét yow sallallahu alayhi wa sallam yaag sa waa kër ñu ngi la bëgg lool والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ñoom dégg nañ yow niñ lay torturer ci mag niñ la fay sonalee yuhibbuna man hajara ilayhim bëgg nañ bëgg nañ ku gàddaay ci ñoom chaque jour ñu ngi lay woo naan la ay waay ñëwal sa góor gi way na ko nee na madaawa man marra minhum qaa'iluuna lahu alqil asa talqa xayral amni wal udami nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee ba madinatu munawwara ànd ak giléem gi fu mu romb rek fu mu romb rek gaa yi di ko teeru naan ko ay waay alqil asa waaye waaye kaa ñu dalal la alqil asa kaa ñu dalal la hmm. am na am na benn ansaar boo xamante ni dafa dem kar giléem gi hmm. téye giléem gi ne ko yonent bi sama kër ngay dal yonent bi ne ko man yonent laa te yonent hmm. du def loo xamante ni ne euh, yàlla digalu ko yàlla digalu ko mu ne ko giléem gii borom ndigal bàyyi ko rek mu nekk fa mu nekk mooy fu mu dal rek foofu laa war a sax ñii ñoo baax ñoo baax billaay ndeysaan aywa bi leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee loolu ñu ne ñoom dañuy walladina tabawwa'u daara wal imaana min hablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutu amuñu benn soxla bu dul dañoo bëgg gis nit koo xamante ni mu ngeeg mu ngeeg mu ngeeg lu mu war a fajo aajoom ñu fajal ko aajoom wala yajiduna fi sudurihim xañ seen bopp jox ko xañ seen bopp jox ko xoolal ñooñu fañ tolloon ci dimanche xoolal fañ tolloon ci dimanche mooy ñoom duñ gis ku sonn mukk duñ gis ku sonn mukk duñ dégg si rajo koo xamante ni day woote naan man de ordonnance sàngam laa donte rajo amul waaye ci waxin ñoom duñ gis koo xamante ni sonn na ñu denc alal déedéet te loolu sax dafa xaram jàppoon nañ sax ñoom bu benn ansaar benn ansaar bu bu bu bu faatoo mhm. benn muhaajir dina ko doon wallaahi la te lii te lii am na te mhm. lii am na lii li ngay wax ni mhm. am na xam nga nu mu amee. mooy Abdourahman ibnu Awf. bi mu ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wa da ko booleeg benn saxaabu bu ñuy wax Saad Ibn Rabia. Saad Ibn Rabia dafa wax Abdourahman ibnu Awf ne ko dama bëgg. ne ko maa yow dañuy séddoo sama alal. li ma am yëpp maa yow dañ koy séddoo. waaye du ma ci yem mooy samay samay waruwaay dañ koy séddoo. sama kër dañ koy séddoo. am naa ñaari soxna waaye bu la neexee. maanaam tànnal ci sama ñaari soxna yi koo ci bëgg. ma fase ko nga takk ko. ma ma fase ko nga takk ko. xoolal mbaax googu. Hmm. te loolu daganul ci lislaam hmm. waaye yonent uh, uh, Abdurahman ibnu Awf hmm. moom it comme que yonent bi da koo yar comme que yonent bi da koo yar pédagogie yonent bee nekk ci moom mu ne ko ah ndimbal de wax fa dëgg yàlla duñ ko delloo ndax soxla nañ ko hmm. ndax suñu alal ñu ngi ko bàyyi màkk hmm. waaye daal baarakallaahu fii ahlik baarakallaahu fii ma fii ahlik mooy alal ji sa alal daal loo ma ci jox ma jël waaye say soxnaa ki say doom ak wax fa dëgg yàlla téye ko ñun ñëpp benn lañ ndeysaan xoolal loolu alxaj daawda ñoom fañ tolloon ci wàllu dimension ci wàllu bëggante hmm. bëggante bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñu jàngal seen mbokku jullit yéen ak seen mbokku jullit na ngeen mel ni comme benn yaram boo xam benn yaram. ci rek cër yëpp ñooy ñooy boole solidarité ànd ak métit bi xoolal ñooñu nañu doon partagé seen i bien dem ba àggoon ci dimension soxna soxna ak fi mu toll ci ci bëgg-bëgg góor yàlla yi nga nangu koo jël. fase ko jox ko sa beneen moroom góor mu takk ko. aywa xoolal ñooñu ci dimension jàngale boobu noonu. Hmm. ñun fan la ñu toll ci loolu alxaaj Daawda. aywa loolu bu ñu ko doon natt si penc mi. Hmm. dañuy gis ne ñun xaw nañoo des. gaa yi ñooñu man loolu duñ ko werante hmm. waaye tamit ñun fan la ñuy jaar ba baax. mooy seen tànk la ñuy topp. mooy kon. réew mi ñu ci baree bari maa ngi la doon wax benn xadis ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam araamal na nit denc alal man ma denc alal mu Mouhamadou Baara am am soxla Mouhamad Baara am soxla man ma denc alal yonent bi nee na man baata dafa toog ba mu yàgg mu ne wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa hmm. di ko waat ba saxaaba yi naan ay waay yonent bi lu mu war a wax hmm. mu naan billaahi gëmul giñ naa ko ci yàlla gëmul giñ naa ko ci yàlla gëmul ñu ne ko yonent bi kan moo gëmul mu ne man baata shabaana wa jaaruhu jaaiwun wa huwa yaalam mu ku fanaanoo suur reg hmm. nga fanaanoo regg hmm. te sa dëkkandoo fanaanoo xiif hmm. wa huwa yaalamu te nga xam ko yow wallahi gëmoo te loolu mooy li am mooy ñun ñëpp in ka in kunna muminin hmm. bu fekkent ni doon nañ ay jullit ñun ñëpp hmm. comme xadis bi nga wax sànq hmm. yow boo amee soxla rek day mel ni soxla bi day doon sama soxla aywa loolu kon bu buñ ko doon natt ci penc mi dañuy gis ne ndimbal am na ndimbal ñu wax ne amul waaye e, Sénégal gàcce ma ni ñuy dimbalee beneen affaire la ndax moom rek ngay fekk ci dëkk yi nga xamante ni foo bu añ jotee boo ñëwee ñu ne la kaay xewul reer jotee aywa hmm. baladul karam réewu teraanga la hmm. waaye réewu teraanga waaye nañ xoolaat mbir mi hmm. alal ji ngay denc yow alal ji ngay denc bari na ñu nekk sa koñ ñoo xamante ni am nañ ay soxla yoo xamante ni buñ ko tegoon ci pénc mi sax du ko àttan kon alal jooju nañ koy génne di ko def ca fam war di ko def ca fam war ndax alal ji alal du dara hmm. wax naa la ko ci débuté waxtaan bi hmm. man la wala xadd karam naa ba ni aadama hmm. doomu aadama moo gën alal doomu aadama moo gën alal kon nan ngay seetaani nit koo xamante dem na ba tëdd ci loolu l'hôpital sonn lool yow nga denc alal joo xamante ni xamoo foo foo ko jëmee wallaay moo taxoon mu doon wax laa yu'min laa yu'min gëmul ndax gëm dafa doon koo xamante ni dafa dafa nekk amrun aatifi da ngay da ngay ñeewante nit ki. yow boo amee soxla rek day mel soxla bi day day tourné doon sama soxla. bi suñu biir alaaj daaw dafa bari. dafa bari war nañ cee ñëw. aywa xëy na waxtu bi moo bariwul waaye dinañ ci ñëw. Mhm. dinañ ci ñëw ci ni nga waxee léegi ci euh, ni yor loo xamante ni xëy na yaa yonent bi li waxoon ni gëmul. Mhm. bañ ko laajee kan mu ni koo xamante ni. reer na ba suur te mu leer ko ni benn dëkkandooram mi ngi fanaanoo ak xiif. mu ngi fanaanoo xiif. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xadis suñu war a bàyyi xel alaaj daawda. yonent bi dafa wax taamul isnayni. kaafi salaasa. kaafi salaasa. wa taamu salaasa. kaafi arba. kaafi arba. loolu alaaj daawda nan lañ ko mën a mën a déggee ci buñ ko jëlee wax jooju peese ko ci biir penc bi lan la ñuy jox. mooy mooy lim ñu jox rek mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def. bi mu nekkee saxaaba yi màkka. am na benn bekkoor bu fa xew. bekkoor bi bi mu fa xewee muy xool ne ndax moom li muy jàngal ay saxaabam ñu ngi koy appliquer wala appliquer wuñ ko mu fexe ba am gàtt bi mu jëlee gàtt bi defar bopp bi euh, defar bopp bi dem ne dem ne Seydina dem yónni benn yónni benn ci mbokk yi ci ay doomam nee nañ Fatima la bi mu ko yónnee ci Seydina bakar ne ko demal nga joxal ma ko ko ne ko sama papa moo la ko jox faatima bi mu ñëwee soxna Fatima bi mu ñëwee radiyallahu anha. bi mu ñëwee wax ko Seydina Aboubacar ne ko sam papa moo la ko tibbal Seydina Aboubacar ubbi bool bi naw bool bi lool. te doonte xiif na ndax nee naa la ci majaa lañ nekk mooy xiif. xam nga xiif bu amee rek lu waay jot rek day dundee. lu waay jot day dundee ndax lan pexe amul. pexe amul te xiif am na. yàlla nañ ci yàlla musal. Mhm. aywa bi loolu amee. سيدنا ابو بكر خول بول بام ياغ مون مونت نون دي وا ماك نون نيب خيف لير نما ني صلى الله عليه وسلم لي دنج كوكو تيبل نانغو كو ليك مودي ماكو جوخ واي ليم ني جانغالون موم لا ني ابليك ويؤسرون على انفسهم ولو كان بهم قصاص سيدنا ابو بكر خلم دم سي سيدنا سيدنا عمر سيدنا عمر خول ياك بي ني سيدنا ابو بكر موم موم نون نيب جي خيف لا نيك مي لي لوكو تري ليك سيدنا ابو بكر دوما غنا غوري دم جوخ سيدنا عثمان Seydina Ousmane moom it nga xamante ne sa tabe ga ak yërmande ga ndeysaan bi mu ko xoolee rek ne lii de sama rakk ja laa koy jox rakku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm. nga xam ne kuy jàmbaar rek moom ngay dimbale mm. muy Seydina Alin Badara mm. mu jox ko Seydina Alin Seydina Alin ne lii de du ma ko jëfandikoo lu dul sama soppe ba di sama mag ju tedd sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne moo ñu gën ñun ñëpp te ñu ngi si xiif ñu ngi si xiif kon waruñoo lekk di ko bàyyi. ba ndab bi dellusiwaat ci yonent bi. ba ndab di delluwaat ci yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam mu tuur rongoñ yi. Mm-hmm. ne wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa keroog la wax xadis bi ay yiqmu bi ay yiqtadaytumu mais asxaab samay saxaaba ñoom ñëpp ñu baax lañ foo leen ci roy rek àgg ca yàlla wallaay ndeysaan aywa mm-hmm. kon loolu imagine loolu tey buñ ko doon dund mm-hmm. ku ci nekk am sa morom aatifa thème bii li muy li muy tereet hmm. lu njëkk ci li muy tereet hmm. mooy mooy mooy yërmande yërmande hmm. mooy al isaar ñoom bu ñu ko daan def lu tax wa yaxmilum ala zalika fartu shafaqati ñeewante gu ëpp ñeewante gu ëpp nga xamante ni koo gis jàpp na yow moo la gën la xewoon jamono jooju nga xamante ni ñeewante bu ëpp mooy wa fartu shafaqati war rahmati yërmande gu ëpp ak ñeewante gu ëpp mooy waral mooy moo moo moo aywa moo nekkoon ci seen penc ma kon ñun buñ koy def te jamono bi toll fii mu toll mm. kon est-ce mën nañoo wax ne ne yërmande mm. ne des na kon yërmande des na lu bare bare macha allah alaaj daaw de di njëkkante waxtu bi fi nga nekkoon neex na lool waaye xëy na lu duuf si ndag bi yëpp xajandoowul ci biir cin bi mm-hmm. waaye ci tënk rek eh, yaa ngi ne yaa ngi nekkoon ci lu am solo mm-hmm. muy isaar ci yan façon lañ koy defee mm-hmm. jàngal nga ñu isaar ci diggante nit ak boro nit ak boromam mm-hmm. ni mu ci defee isaar mm-hmm. waaye jàng nit ni muy defee isaar si ak moroomam mm-hmm. muy lu am solo ñu toll ci période boobu nag mbokk yi comme ni ko daanalee isar xeetu jikko la joo xamante ni mën nañoo wax ni jikkoy ñeewant la waaw koo gis rek ko sa bopp sa xol tooy nga nangoo jël li nga am yëpp jox ko xañ sa bopp ndax loolu mooy jullit waaye ci tënk rek ci ci nan la ñu mën ci mbir la hmm. nit ki di lay jàppandee ci nit ki bañ ne nit ki war naa mën a def isaar ci alal lay doon hmm. ci ay alal wala ci ay bien lay doon wala ci yan mbir la nit ki di jàppandee bañ ne nit ki kat war naa mën a def isaar ci tënk rek na xam naa waxtu bi mu ñuy dab alaaj dawda aywa si tënk hmm. waaye li li borom xam-xam bi wax di Yuusuf ibnu Xuseyn bi di mutasawif bu mag li mu wax ne isaar noonu lañ ko war a mën a defee mooy moo mooy xaayida bi mu tënk mooy ban la dafa wax ne doomu aadama bi yàlla moo ko bind hmm. mais li la yàlla bind yëpp maanaam lim la dénk hmm. lim la dénk yëpp hmm. lim la jox nga moom ko ci waxin mooy moomu majaas la maanaam da nga koo moom mais moomoo ko dëgg-dëgg ndax am na koo xamante ni fii ñu nekk nii tey am nañu am na ku fi dëkkoon kër gii ñu nekk nii di précise am na ñu fi dëkkoon bu yàgg anañu tey kon jóge nañ fi est ñoo ko moomoon te biñ fiy nekk ñoom lañ ko doon adressé aywa kon doomu aadama bi dafa war a xam ne lépp lu nekk ci loxoom. dafa ñëw ala yadi amaanatin. Mm. mooy ci ndénkaane. Yusuf Ibn Xuseyn nee na nañ dawee expérience boobu. Mm. mooy lépp loo am rek jàppal na yow lii yàllaa la ko dénk. Mm. aywa bu la ko yàlla dénkee. Mm-hmm. mu ne kon kooku moo mën a def isaan. man raa milkan laa yasixu min al isaar ku jàpp na yow yaa moom dara yow yaa moom nangam. ñuy wax nga ne yow yaa moom kër gi yaa moom oto bi yaa moom nangam hmm. di woote ay milk ay xool leen sama alal ji xool leen sama nangam uh-huh. kon kooku du ko man ki ko man dëgg-dëgg mooy koo xamante ni li annahu laa yara nafsuhu aqu bi shay bi ruyati milki ndax xam-xam boobu boo ko amee rek boo jàppee ne yow yaa moom lépp dangay jàpp ne yow lu ne rek yow yaa ko yayoo wallaay du tee aywa hmm. boo ko yayoowee kon da jàpp ne yow rek yaa koy jëfandikoo hmm. mais boo jàppee ni lu ñëw rek yàllaa la ko dénk te ni ko yàlla yàlla ni mu la ko joxee mën na ko jox kaneen bu la ko yàlla joxewee noonu bu fekkee expérience boobu nga ci am da nga jàpp ni lu ñëw rek dafa ñëw ala yedi amanatin lu ñëw ala yedi amanatin da ngay jàpp da ngay yow esprit ban nga ci am mooy da ngay jàpp ni ku ñëw rek sa xel da ngay xam ne kii de yàlla ko fi yebal ndax ku bàyyi ñëpp ñëw di la di soxla aywa sàmb kooku waroo tas yaakaaram même boo koy jox ñaar fukk sax ci masalan waroo tas yaakaaram ndax borom maqaama da koy tere nee na walaa tuddan li aqit ta amuli xurmatuhu nee na borom xorma. Hmm. ku bàyyi ñëpp ñëw di la wax soxla. bul tas yaakaaram mu mel ni waxtu bi. Hmm. fa tabaarakallaahu mooy. ndeysaan lu duuf si nag yëpp xajandoowul ci ci ci ci ci cin li. waaye lu am solo la yaa ngi nekkoon fu am solo alaaj daawda muy ci yenn mbir lay jàppandi ci nit ki mu def isaar. kon ni mu ko waxee képp koo xamante ni jàpp nga ni li la yàlla jox yow yaa ko moom rek kon munoo def isaar waaye saa yoo jàppee ni li la yàlla jox yàlla daf kaa jaaral la say loxo ngir jaam alal du wàcce du jox kenn kër waaye da koy jaar la say loxo ngir jaam yi nga xamante ni war nañoo am ñi ñëw jaaree ci yow kon loolu mbokk yi nañ ciy bàyyi xel mu nekk xeetu jikko ju am solo xeetu jikko joo xamante ni tumuranke ne ci réew mi te comme ni nga waxee rek soxla nañ ko ndax xiif ga saxaaba yi nekkoon xëy na am na si ñoo xamante ni àgg nañ foofu wala ñu raw leen kon nag ñi ngi ciy bàyyiloo xel mboolem ñi nga xamante ni seen loxo jot na ginnaaw si niñ koy waxee ñiy bàyyi xel ñi nekk seen ñi nekk seen ginnaaw xam ni ñooñ la ñuy am ndax yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ni jullit jullitay mbokkam waaw te nag moom euh, wolof day faral di wax ni ku sa baay rafaatale jàkka faat waxtu waru la loolu mooy lan yonent bi saala ba ñu fi àndiloon ak ñi mu doom yare ay saxaabaam ñoom ñi ko doon dundee ñun ñi fi ñëw wuuti leen nañu jéem a dundee noonu kon xam naa ci tënk rek dañ lay jox nga euh, wax sa kàddu bu mujj baneen yoon incha allah thème bi ñuy àggale la bi mooy première partie bi war nañoo ñëw ci al isaar njariñam isaar xikma bi mu am waaye al isaar ki koy def moom it ban dayoo la am ci borom bi subhaanahu wa xam naa loolu ci yeneen point la yoo xamante dinañ ko àggale ci yeneen émission waaye incha allah dañ lay jox nga tënk rek ci li nga doon wax ak sa tàggatoo incha allah ñu tàggatoo beneen yoon. aywa li ñu doon wax daanaka dafa mel ni tënk nga ko rek mooy kiy dimbale mm. day fekk mu am mm. aywa ku amul mën mën na dimbale waaye ci ay wax ak wala. Eh, wala yu mel ay orientation ak yu ni mel hmm. Hmm. yooyu yëpp façon dimbali la hmm. waaye dimbali daal dafay eh, day fekk koo xamante ni moom li la yàlla dox li la yàlla jox comme ni ko sëriñ bi waxee ne Yuusuf ibnu Xuseyn mooy li la yàlla jox jàppal na ndénkaane la te lu lépp mën mënoo koo dundee lépp mënoo koo dundee da ngay jàpp ni lii wërsëgu diw la lii wërsëgu diw la lii wërsëgu diw la boo jàppee ni ñëpp te xoolal koo xamante ni yàlla mu ngi yàlla yàlla ci yow lay jaarale ne la joxal ma diw kooku am nga sirru boo xamante ni bu ñu ñëwaatee ci émission bi dinañ ko leeral incha allah dinañ ko leeral bu baax a baax a baax ah. Ah. waaye daal ndimbal la boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw def ay sellu mm. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah am na solo ci kàddu yi waxtu bi moo ñu xooj rek waaye mënoon nañ ko gën a yaatal ci yeneen point ngi ne nekk na ci thème boo xamante ni comme nuñ ko leeralee mënuñu si yokk dara ndax képp koo xamante ni yaa ngi doon dégg lan mooy isaar wala ci wolof mooy ëfle kon yaa ngi ko doon dégg waaye tey boo dégloo bu baax di nga jariñu ndax lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu doon yoree ay njabootam waaye it ñun ñu war cee ñun ñu ñëw ci ginnaaw war ko fee wuutu ndax waxoon naa ni yonent bi risaala bu mu fi bàyyi ndonal bu ñu war a sàmm bu ñu ko sàmmee war nañ koo sàmm bu ñu ko sàmmul war nañ koo sàmm kon nag dinañ ko àggale ci yeneen i point incha allah ci émission bi bii di ñëw incha allah dinañ ko àggale ci yeneen i point kon duñ def lu dul santaat ko di ko ñaanal borom subhanahu wa taala dëgëral ko defal ko tawfiq euh, yàgga leeral dënnam waaye di santaat bu baax a baax mboolem téléspectateurs yi waaye di santaat bu baax waa kër gi euh, di si jiital PD PDG Pape Doumbia waaye di ñaanal mboolem personnel boo xamante ne yaa ngi fi rek ñoom Papa Sow ñoom Malick ñoom Daouda ñoom Ibou Ndiaye ñoom Cheikh ñëpp ñu ngi leen nuyu rek di leen rafetlu ci liggéey bi ak taxawaay bi di leen ñaanal yàlla na yàlla doole defal tawféex waaye di nuyu suñu soppee Mouhamed Baara Diop di ko ñaanal defal ko gudd fan ak wér ak tawféex di ñaan defal jàmm ak sutura allahu taala alam sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في